bu France tëjee suba ngoon Macky tëj ñu cette loi n'avait pas sa raison d'être parce que tout simplement état d'urgence ak état de siège lu valable la article 69 bi ñuy bi ñuy bi nga xamante ni moom la ñuy modifier tey 69 29 du 29 avril 1969 xam naa ñu bëri juddooguñu ñu koy modifie mais ah, gis nga loi bi lépp la comporter am na lépp ci biir li nga xamante président mënoon na ko utiliser sans pour autant muy def appel recours à la modification de la loi moom kay jëlal na boppam prérogative yi parce que loi bi permettre na ko mu def douze jours na def douze jours am bu soxlawaatee yeneen dou jours wala prorogation ñun député yi dañ ñuy fay ci xaalisu assemblée nationale mu ni ñu toog assemblée nationale waxtaane ko jox ko prérogative mu yokkat mais li tax man la loi bi dafa impopulaire parce que dafa xañ droit li nga xamante ne mooy le parlementaire te man parlementaire que je suis man je suis contre cette loi ak toutes mes forces mhm. dama jëlale li nga xamante ne moo ci nekk laxasu ci lépp président na président président préparé waale ko ci ci wa ci loi bi mais man dama ci dama ci dama ci dama ci bëggoon sax ne lii jaral na ma dem yéeg ci kaw grille ci assemblée nationale toog bañ àjjee ma fa parce que tout simplement yi dafa bëgg a takk waa Sénégal jaay leen waa France. mais su ñu gisee ci exposé des motifs loi bi dafa wax ne que peut-être euh, loi bi dina leen permettre ñu ñu dem un peu plus vite euh, par rapport ak euh, catastrophe sanitaire wala naturelle yi mën a am loolu tamit naka lañ ko mën a jàngatee parce que su fekkee ne que logique boobu lañ demee le président de la République peut-être a a de de de de de proposer c'est man dama lay wax ni la baaxul pour mu proposer ko. Mhm. parce que gis nga catastrophe naturelle ñu ngi tey nekkuñu ci catastrophe naturelle. Mhm. ñun ñu ngi nekk ci bu dee dañuy wax dañoo nekk ci urgence sanitaire mën nañoo jël urgence sanitaire di ko jaawale ak catastrophe naturelle. Mhm. xam nga lan lañ ma bëgg a tegal man ñoom comme ali bi li ma gis. mooy euh, puits de pétrole bi doon tàkk bërki démb. Gandiaga. ñu toog ñaari fan. amuñu lu ko fay loolu urgence la wala loolu catastrophe naturel la non du loolu li làqatu ci ginnaaw loi bi nekkul li nga xamante ne mooy urgence sanitaire. kon lan moo ci làqatu man je pense que urgence sanitaire bi su fekkonte ni président bëggoon na ko régler du woon lii parce que bërki démboo Ndiaye fi ñuy commencé dañu dugg ci mbas mi mu nekk lu nouveau au Sénégal. Mhm. xamuñu ko ñun miinuñu ko tàmmuñu ko ñun ñëpp mbas yëpp jaar nañ fi. mu woote pale woote waxtaan wóor président parti yëpp ñëpp dem wuy ji ko. Mhm. ñu bëgg jàmm Sénégal bëgg jàmm réew mi mu ne nañu ko may ay prérogatives yoo xamante ni moo koy permettre saa yu affaire bëggee jaxasoo mu def état d'urgence nit ñi dem fàttu ji seen biir kër ñu wàccee mbas mi ñu may ko trois mois mu utiliser ko mu ñam sénégalais yi ne neex na parce que duma nañ fi ci sénégalais yi ci diggante bi. <laughs> dóor nañu leen fi tëcc nañ leen fekk nañ leen ba seen biir kër même bu dee ci kaw loolu policiers yi doon def loolu fayuñu leen utiliser nañ leen à des fins à leur fin propre te ñu leen mais fekk nañ leen seen ba seen biir kër loqati leen di leen di dóor mu ne ah sénégalais kon ragal la léegi commencé nañoo tëdd vingt heures kon li may waat ci kanam muy ñëw te ma koy préparer en deux mille vingt quatre mais mais mais justement honorable foofu tamit il faut nga nga clair ci parce que nee nga loi bi gëmoo li ñu teg nii pour yow yaa anguille sous am na lu ñuy nëbb wala am na lu bëgg def mais lan la exactement. mais exactement Macky veut se positionner en en deux mille vingt quatre comme candidat à la présidence de la République yaa ngi dégg ñëpp di ko wax. moi je pense que des catastrophes naturelles yooyu bu ñu koy def defe naa bon mun naa ni fii euh, bi bi temps Mamadou Dia. la fi état de siège et état d'urgence am temps wu Senghor la fi état d'urgence et état de siège am ab lay Wade li fi xew lépp ngeen xam ko 24 juin am fi leneen am fi wax leen ma yéen ci seen historique li ngeen xam kan moo fi dégg état d'urgence ak état de siège léegi wax leen ma ko mais yow le 24 juin jarul woon état d'urgence ak état de siège mhm. loolu moo rawoon catastrophe naturelle le lendemain pour s'accaparer du pouvoir sama waa ji la gor si waroon naa mën a jël état d'urgence ak état de siège ndax Macky est impopulaire bi gars yi di xeex fii Macky mu nga dawoon làqatu ji fële ca ginnaaw naan day wut militant musul xeex Macky dafay napp sénégalais yi parce que xam na ni amul fit ñemewul mu ne xaaral ma napp sénégalais yi seet ba xam ay tapet lañ suñu tapetee nag deux mille 2024 état d'urgence ak état de siège laay def xañ ñépp seen i teraanga xoolal xam nga état d'urgence ci lan lay dem mooy ma yërndu la. Mhm. est-ce que mës ngaa voyager ne ne Aïcha. Mhm. jaar ci rayon X yi ñu lay seet. Mhm. boo voyager jaar ci rayon X yi ñun européens yi dañu koy bañ dañ koy xeex am nañ ci droit. ñun ñi nga xam ne dañuy voyager mais mu ngi mel ni télévision bi ñu taal ko dañuy gis sa squelette sa yaram. waaw yi dina yër dina la yërndu yow dina ma yërndu man dina yërndu greffier ba dina yërndu procureur ba dina dana écouter sa téléphone mënoo koo bañ. ci état d'urgence bi ak li ñu ko jox dina seet li ministre de l'intérieur yi def da koy yërndu chaque fois moom na xam boppam dàq na policier mais fi mu jëm xamu ko parce que dañ ko indi pour mu dàq Sonko tere Karim Wade mu ñëw mais moom Macky ci état bi li ñu ko voteel dina la yërndu yow yërndu keneen état d'urgence ci yooyu la maanaam ay catastrophe la yoo xamante ne bu amee président day am droit de regard surtout dana dem ba limité ñaata oxygène la ñu war a ñun par jour <laughs> d'accord donc man jàpp naa ni cette loi n'avait pas sa raison d'être la modification de cette loi n'avait pas sa raison bu France tëjee suba ngoon Macky tëj ñu cette loi n'avait pas sa raison d'être parce que tout simplement état d'urgence ak état de siège lu valable la article 69 bi ñuy bi ñuy bi nga xamante ni moom la ñuy modifier tey 69 29 du 29 avril 1969 xam naa ñu bëri juddooguñu ñu koy modifier mais ah, gis nga loi bi lépp la comporté am na lépp ci biir li nga xamante ni président mënoon na ko utiliser sans pour autant muy def appel recours à la modification de la loi moom kay jëlal na boppam prérogative yi parce que loi bi permettre na ko mu def douze jours na def douze jours am bu soxlawaatee yeneen douze jours wala prorogation ñun député yi dañ ñuy fay ci xaalisu assemblée nationale mu woowaat ñu toog assemblée nationale waxtaane ko jox ko prérogative mu yokkaat mais li tax man la loi bi dafa impopulaire parce que dafa xañ droit li nga xamante ne mooy le parlementaire te man parlementaire que je suis man je suis contre cette loi ak toutes mes forces mm-hmm. dama jëlale li nga xamante ne moo ci nekk laxasu ci lépp président na président président préparé waale ko ci ci wa ci loi bi mais man dama ci dama ci dama ci dama ci bëggoon sax ne lii jaral na ma dem yéeg ci kaw grille ci assemblée nationale toog bañ àjjee ma fa parce que tout simplement Macky dafa bëgg a takk waa Sénégal jaay leen waa France mais su ñu gisee ci exposé des motifs loi bi dafa wax ne que peut-être euh, loi bi dina leen permettre ñu ñu dem un peu plus vite euh, par rapport ak euh, catastrophe sanitaire wala naturelle yi mën a am loolu tamit naka lañ ko mën a jàngatee parce que su fekkee ne que logique boobu lañ demee le président de la République peut-être a a bien fait de de de de de de proposer cette loi. c'est man dama lay wax ni la baaxul pour mu proposer ko. Mhm. parce que gis nga catastrophe naturelle. ñu ngi tey nekkuñu ci catastrophe naturelle. Hmm. ñun ñu ngi nekk ci bu dee dañuy wax dañoo nekk ci urgence sanitaire mën nañoo jël urgence sanitaire di ko jaawale ak catastrophe naturelle. Hmm. xam lan lañ ma bëgg a tegal man ñoom comme ali bi li ma gis. Hmm. mooy euh, puits de de pétrole bi doon tàkk bërki démb. Gandiaga. ñu toog ñaari fan amuñu lu ko fay. loolu urgence la wala loolu catastrophe naturel la non du loolu li làqatu ci ginnaaw loi bi. nekkul li nga xamante ne mooy urgence sanitaire. kon lan moo ci làkkatu man je pense que urgence sanitaire bi su fekkonte ni président bëggoon na ko régler du woon lii parce que bërki démboo Ndiaye fi ñuy commencé dañu dugg ci mbas mi mu nekk lu nouveau au Sénégal. xamuñu ko ñun miinuñu ko tàmmuñu ko ñun ñëpp mbas yëpp jaar nañ fi. mu woote pale woote waxtaan woo président parti yëpp ñëpp dem wuy ji ko. Mhm. ñu bëgg jàmm Sénégal bëgg jàmm réew mi. mu ne nañu ko may ay prérogatives yoo xamante ni moo koy permettre saa yu affaire bëggee jaxasoo mu def état d'urgence nit ñi dem fàttu yi seen biir kër ñu wàccee mbas mi ñu may ko trois mois mu utiliser ko mu ñam sénégalais yi ne neex na parce que duma nañ fi ci sénégalais yi ci diggante bi <laughs> door nañ leen fi tëcc nañ leen fekk nañ leen ba seen biir kër même bu dee ci kaw loolu policiers yi doon def loolu fayuñu leen utiliser nañ leen à des fins à leur fin propre te fay ñu leen mais fekk nañ leen seen ba seen biir kër loqati leen di leen di dóor mu ne ah sénégalais kon ragal la léegi commencé nañoo tëdd vingt heures kon li may waat ci kanam muy ñëw dama koy préparer en 2024 mais mais mais justement honorable foofu tamit il faut nga nga clair ci parce que nee nga loi bi gëmoo li ñu teg nii pour yow yaa anguille sous roche am na lu ñuy nëbb wala am na lu bëgg def mais lan la exactement. mais alors? exactement Macky veut se positionner en en 2024 comme candidat à la présidence de la République yaa ngi dégg ñëpp di ko wax. moi je pense que des catastrophes naturelles yooyu bu ñu koy def defe naa bon mun naa ni fii euh, bi bi temps wu Mamadou Dia. Mm-hmm. la fi état de siège et état d'urgence am. Mm-hmm. temps wu Senghor la fi état d'urgence et état de siège am Ablaye Wade li fi xew lépp. ngeen xam ko. Mm-hmm. juin am fi leneen am fi. wax leen ma yéen ci seen historique li ngeen xam kan moo fi dégg état d'urgence ak état de siège léegi wax leen ma ko mais yow le 24 juin jarul woon état d'urgence ak état de siège. Mm-hmm. loolu moo rawoon catastrophe naturelle le lendemain pour s'accaparer du pouvoir sama waa ji la gorsi waroon naa mën a jël état d'urgence ak état de siège ndax Macky est impopulaire bi gars yi di xeex fii Macky mu nga dawoon làqatu ji fële ca ginnaaw naan day wut militant <laughs> musul xeex. Macky dafay napp sénégalais yi parce que xam na ni amul fit ñemewul mu ne xaaral ma napp sénégal yi seet ba xam ay tapet lañ suñu tapetee nag 2024 état d'urgence ak état de siège laay def xañ ñépp seeni teraanga xool xoolal xam nga état d'urgence ci lan lay dem état d'urgence mooy ma yërndu la mhm. est-ce que mës ngaa voyager ne ne Aïcha mhm. jaar ci rayon X yi ñu lay seet mhm. boo voyager jaar ci rayon X yi ñun européens yi dañu koy bañ dañ koy xeex am nañ ci droit ñun ñi nga xam ne dañuy voyager mais mu ngi mel ni télévision bi ñu taal ko dañuy gis sa squelette sa yaram. waaw yi dina yër dina la yërndu yow. dina ma yërndu man dina yërndu greffier ba dina yërndu procureur ba dina dana écouter sa téléphone mënoo koo bañ ci état d'urgence bi ak li ñu ko jox. dina seet li ministre de l'intérieur yi def da koy yërndu chaque fois moom na xam boppam dàq na policier mais fi mu jëm xamu ko parce que dañ ko indi pour mu dàq Sonko tere Karim Wade mu ñëw mais moom Macky ci état bi li ñu ko dina la lu yow lu keneen état d'urgence ci yooyu la maanaam ay catastrophe la yoo xamante ne bu amee président day am droit de regard sur dana dem ba limité ñaata oxygène la ñu war a noyyi ñun par jour. <laughs> d'accord donc man jàpp naa ni cette loi mhm. n'avait pas sa raison d'être la modification de cette loi